voilà man Ndiaga Diaw euh, secteur général de l'UJTL du département de Thiès euh, secteur général de de la section de Thiès Ouest du PDS membre du comité directeur du secrétariat national de la cellule de communication du PDS je suis également coordonnateur de Sauvons le PDS ah. waaw li xew day je pense que ñëpp teg nañ ci seen bët euh, ñëpp a ko gis parce que ñi ko def ci seen bopp sax avoué nañ wax ne effectivement ñoom ñoo ko def euh, ñëw nañ permanence pour assister ci benn réunion boo xamante ne réunion PDS la ñu war a monter les structures horizontales et verticales du parti pour wane rek ne jaaralewuñ ko ci njub commissaire bi bi muy ñëw dafa convoqué benn camp bàyyi beneen camp bi ci des waaye malgré tout déplacé wu nañ dem ba permanence pour assister réunion bi alors ñu mobiliser ay agresseurs indi leen fa ñu attaqué ñu ba man xëj na ñemewuñ ma laal mais dañuy seet ci ñi nga xamante ni ñoo ma gën a jege kenn ki di Ibrahima Tall ñu xam afinité ak complicité bi nekk entre man ak moom ñu dal ci kawam attaqué ko jam ko dóor ko ay briques dóor ko ay yat ba tey ji ba fii ñuy wax ak yow mi ngi ci situation boo xamante ni kenn xamul fan la nar a mujj je pense que yéen ñi ko gis xam ngeen ne li ko dal dëgg yàlla metti na ba fa yàlla yem fa fa metti dem alors te ñi ko def du ñenn ñu dul Mor Diouf bi nga xamante ni tey moo ko commandité ànd ci ak Cheikh Fall mbay parce que bi ñu yegsee rek Cheikh Fall mbay ñëw na ba ci man ne ma tey dinañ leen yenn lu ngeen musul gis tey di ngeen daj fii lu ngeen musul daj loolu mooy wane ne kon c'était prémédité donc lu ñu waajal la préparé ko alors donc pour le moment ñun li ñu tal mooy suñu nit bi nekk ci biir nekk ci ay jafe moom la ñuy taxaw diggante démb ak tey je peux dire que presque lu mat cinq cent mille dépensé nañ ko pour que mu wér alors danañu continuer di ko taxaw muy gis nga Serigne di Ndiégène ci biir gis nga également euh, Pape Moussa Diop ñëw na fi Magay Sarr les responsables ba ci moor Diouf mi nga xam ne moo ko agressé sax ñëw na fi dem mais bi mu ñëwee dama ne ko doo fi dugg parce que mënoo dëmm rey la ba pare jaale la mënoo mënoo nee na ci biir c'est pas vrai la preuve. mi ngi nii moom ci boppam moom moo moom moo wax te li mu wax euh, il faut aussi ñi nga xamante ni ñooy internautes yi ñu dégg ko parce que lii. loolu mu doon def tey jàllul. parce que ñam na bu baax a baax a baax. ñi ma àndalit ñam nañu. defe naa ne taal tey ku ko gis moom bi daan agité gémmiñam yëpp yàq nañ ko yàq kanamam te moom moo def provocation parce que moo ñëw ne dara du fi am. yaa ngi dégg donc je pense. kon donc je pense que lii leer na bu fekkente ne Jakarta moo ko moo ko daaneel lan moo ci indi ñun toj nañ kanamam gi ñoom ñoo wax ne ñoom ñoo ko agressé ñoo toj kanamam ñoo yàq kanamam te li ñu def xamuñu ko parce que tey ki taal ku ko xool fii dugg ci biir gis ni ñu ko jamee ci mâchoire bi ak ni ba ñuy démonté woo ba ñuy xalaat ne dañ koy yóbbu pour opérer ko je pense que bu ñu xamoon gravité bi ci nekk. waroon nañ tal leneen lu dul di glorifier wu ci lu mel nii parce que tey ci seen camp boobu muy moor muy ñoom Baara ak ñoom Demba Ndiaye ak ñoom Cheikh Fall Mbaye ku ci lii daloon man ma bàyyi lépp lu ma jàpp ñëw taxaw la donc tey dama jàpp ne bu dalee ci ku mel ni taal nga xamante ni lu ne daj na ko ci parti bi depuis baayam ba tey waroon nañu am beneen taxawaay buñ ci am lu mooy di di di di fëgg dënn di wane ne li tey ñam nañu ñam nañu. yow ci ah. nee na dàq nañ la ci section communale Thiès te dina fexe ñu xam nga loolu moom ay waxu caaxaan la tey vraiment yooyu bëgguma duma ci sax bëgg tontu. parce que waxuma la moom moor mais ku dul moom sax mënuma mënuma dàq ci parti moor maa ko ëpp légitimité ci parti bi maa ko ci maa ko ci gën a yàgg li ma ci def du ko ci def. donc wax yooyu moom ay façon wax la li des li ci des mi ngi ci suñu kanam mi ngi ci suñu mi ci ci terrain bi la en li ñu dal nii. nga xamante ni bett nañ ñu def nañ ñu liñ ñuy def ak septe nañ ko maa ngi waat ci alxuraanu karim ne dootuñ dalati ci àdduna commissaire bi dimanche la convoqué ba dimanche ak jàmm ba ñu daje permanence incha allah jëf